bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalatu wassalaam ala man ursila rahmatan lilalamin sayidi alxalqi ajmain sayidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina abilqasimi almustafa muhammad wa ala ahli beyti altayibin altahirin wa sahbihi alaxyaari almuntajabin almayamin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ni ñu ko diggee woon ci sunu daje yuñ daan def ci weeru koor wi xool nañ ne si waat incha allah ci jàngat yooyu nga xam ne moom lañ daan def xam naa mën nay am ni mu daan amee bu njëkk muy bis bu nekk du mën a nekk wala boog man nañ koy soppi moo xam benn yoon la walla ñaari yoon ci semaine bi waaye comme diggale woon te ñu bare ñi ciy soññ ñu ne nañu ci dellu siwaat waxoon nañu itam ne danañu dellu si waat ci julli ndax am na luñ ca tàmbali woon ci jàngat ci julli naka noonu ci lépp lu aju ci nit bërëb yi muy jaar mooy ba mu juddoogul bi mu juddoo nekk fi bu fi jógee ko ak bu fi ñë fëg fa ko ñëpp di fa muy tasit ñëpp waaye mu am xew xew yu xew xew jamono même bu fekkee dafa am ay eh, événement yoo xam ne xëy na moo tax ba nañ ko yaakaare woon mën na koy ñàkka demee muy aj màkka ne nañ ci def ay taxaw balaa ñuy dem ci leneen mbokk yi bare itam am ay proposition yu xam ne def nañu ko ndax comme niñ ko xamee bi ñuy lii ci weeru koor bi ci bis bu bi ci weeru koor bi xëy na ci départ ba benn groupe wala ñaar wala ñett la woon waaye mujj gi ay mbokk yu bare daal di ko yëg ñaan ñi ñi boole leen ca am ñu ko yëg itam ñu ko jot itam jottali ko ci ay groupe ba mujj gi demoon na daanaka ci lu war a jege ñaari téeméer ci ay groupe ak i ñoo xamante ne ñu ko doon jot bis bu nekk loolu nag moo tax ñu ne nañ ko def goyen nga xamee ne itam rajo yoo xam ne ñaar yoo xam ne war nañ koy jël bu fekkee dañ koo def yu gàtt lool xëy na rajo bi moom du ko arrangé loolu moo tax ñu ne bon nañ ko def yenn yoo xam ne xëy na dina war a mat ay minute même bu dee ñaari yoon la ci semaine bi buñ ko boole wante ñoom ci seen technique dana mën a nekk benn émission loolu moo tax ñu bëgg commencé ci aju màkk def ci ay jàngat incha allahu bu dëppoog dogalab borom bi bu ñu ci bàyyikoo dem ci yeneen i sujet yoo xam ne junjoon nañ ko ak yeneen yoo xam ne xëy na dana yitteel ñëpp qaala allahu taala fi muxkami kitaabi walillahi ala annaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila yàlla waral na ci nit ñi ñi aji màkka ku ko man faratale ci yow bu ko sorte yépp dajee benn yoon nga dem makkatal mukarram dem màkka comme niñ ko xamee jaamu yàlla la deferu la ibadatun wa tarbiya jaamu yàlla gu nekk nag comme niñ ko xamee ñun ñëpp nekkul ak mujj waaye jumtukaay la bu ñuy jëfandikoo pour dégg ci fi nga xam ne fi la ñu sunu borom di séentu te mooy deferu ci yëpp bépp ak wàll te mooy juboo ak sa borom ci wóolu ko ci xam ko xàmmee ko ci yëg ko ci lépp waaye itam deferu ak sa morom ba nga xam ni da nga ceeg ko defer da nga deferu ci moom waaye doo ko yàq doo ko yàqal te itam da nga euh, bu nekk itam kenn ku nekk day nekk ak mottali ci kooku nga xamante ne moom mooy moroomam te mooy nit ñi moom doomu adama nag comme niñ ko xamee sunu borom subhanahu wa da koo bind def ko mu nekk koo xam ne ni mu ko bindee bindeewu ko dara ndax da ko bind dafa bind objet yi muy jamaa daal yi muy xeer yaag ndox maag garab yaag suuf yaag yeneen yi des yooyu da leen a bind bindee leen benn boor maanaam ñoom la ngay gis noonu rekk lañu am bind malaayka yi itam bindee leen benn boor muy booru leer rek lañu am mu bind jinne jox ko leer ga malaayka am waaye jox kos lëf ci li nga xam ne moom la jamaadaat yi am moom la objet yi am te doomu aadama nag bind ko jox ko lépp li malaaka am waaye itam jox ko lépp loo xam ne moom la matériel am muy objet yeeg yeneen yi des loolu moo tax mu sas ko sas gum sasul kenn sas ko ne lu fi nekk nag man nga koy jëfandikoo teraangala la yow wala xad karam naa bani aadama wa xamal naahum fil barri wal bahar lu fi nekk rek koog suuf dama la ko defal mu nekk teraanga joo xam ne man nga cee yegg jox naa la itam nga mën a am xam-xam ba fan puzu la tan puzu na ilaa bi sultaan bon lépp lu yàlla bind lu nekk moo xam ci suuf la ne moo xam ci kaw la moo xam ci biir géej gi moo xam fu mën nekk moo xam même ngelaw li nga xam ne dañ koy jëfandikoo moo xam muy jant be teneeram ya lu mën a doon rek suñu borom subhaanahu wa taala da koo teg def ko ci disposition nit ki pour man ko jëfandikoo di ci defer di ci deferu waaye nag mu ne lu fi yàqu itam nag yaay responsable yàqu lu nekk teraanga ji ku la ko jox lu fi nekk yaay responsable bu yàqu gaaral fasaadu fil barri wal bi ma kasabat ay di naas lu fi yàqu ci kaw suuf yow la moo tax fu bare bare bare yàlla da ko naan yàqkat yi bëgguma leen bëgguma musrifiine yi bëgguma mutrafiine yi bëgguma ku nekk lu nekk rek lu bon rek mu ne ko loolu bëgguma ko ndax taxu may jóg wii teraanga nag ku ko jox nit jox ko xel moo xam ni suñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali neen na bu fekkonte ne lu rekk la yàlla joxoon doomu aadama muy xel bu yowmal qiyaamee sañ naa taxaw ne ko lu tax nga def lii lu tax def wala yonte xel ma bon loolu ku ko jox jël xel jox ko doyut ca nga ñëw yónni ay ñu xamante ne dama leen def leen a defer ku ci gën a màgg gën caa tedd gën ca kowe nga xam ne ko fi dikk ku nekk da nga doon ñëw pour sàkkal ko yoon nga xam ne moo gën a màgg ko mën a ne mat-mat goo xam ne dara dootu ci yokkati muy xaatimul nabiyin muy suñu sang sangu sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jël ko def ko ci suñu disposition lépp lu mu war a ñu war a xam mu xam mu xamal ñu ko lépp lu ñu war a fu ñu war a yegg mu junj ñu ko bàyyeeg ñeeg ñu xamante ne ñoo ñëw teg ciw yoon dafay loolu nag junj yooyu lu nekk rek junj yi nañu ko loo xam ne war nañ caa a jëfandikoo sunu xel ba yegg foo xamante ne foofa danañu fa mën a danañu mën a may ñu jëfandikoo teraangaay sunu borom subhanahu wa taala te duñ fa duñ ci yàq duñ ci yàqal léeg-léeg mu junj la dara ci jaww ji ci ci ci ci ci li yàlla bind mooy univers bi al kawnu bi léegi mu jingile ci dara léegi yàlla nan la kanaa xooloo montagne yi kanaa xooloo suuf si doo xool ni ma defee nangam waaw wa shamsi kanaa doo waaru ci jant bi xool kon nit ñi dañ njëriñ wal xamari wal layli waaw wa shajari lu nekk wax nañu ko bu ñu xalaat ci rek bu ñu ci xalaatee danañu xam ne yàlla rek yàlla moom rek la ñu war a wóolu ndax ki def lii ne maa ko def te kenn taxawul ne ko defoo ku taxaw ne defoo ko itam doo wax ne maa ko def wala diwoo ko def lu demee noonu nga xam ne suñu njëriñ rek ci ne heure bu ñu wutee ak règle nature bi ni yàlla bindee yëg ni am na ak sooxe gu am ci suñu doxalin ak suñu dundin kooku suñu borom subhanahu wa taala moo tax lu nekk jungi nañu ko loolu amul lenn lu ko ciy jëriñ waaye bëgg rekk ñu jéem fexe ba ràññee ko moom xàmmee ko ba mën a jëriñu ci topp ay ndigalam waaye bañ a loru itam ci juyoo ak ay terrain kon yooyu yëpp lu mu indi lu nekk comme ni mu ko waxee ci alxuraan di wax ne سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق naa leen wan ay signe yoo xam ne yéen koy war a firi ci lu nekk ci seen biir bopp seen biir sax waaw ne leen yàlla bindee appareil yi mu def ci ni seen jëmm ji mele loolu yëpp dama bëgg ngeen xalaat ci rek la ngeen xam ne xalaat ba la mu leen war a jural mooy ngeen xam ne dëgg-dëgg yàlla mii mooy yàlla moom la ñu war a topp moom la ñu war a déglu moom la ñu war a dëppoo ak ay ndigalam bàyyi ay tere waaye yemut ci loolu dañuy indil li ñu tuddee ay jaamu yàlla lépp jullit jaamu yàlla la waaye dafa am loo xam ne xëy na moo ñu gën a jege nga xam ne ku nekk rek dañ la woo pour nga taqoog moom muy julli ya muy koor ya muy azaka ya muy aji màkka ya ak yeneen yi demee noonu lenn lu nekk itam nekk ay mbir yoo xam ne ay jàngat da cee war a am kon lu nekk comme niñ ko tàmbalee woon ci jullite incha allah bu dëppoo borom ba dinañ ci yegg lenn lu nekk rek sunu borom subhanahu wa taala da koo def pour bëgg xam ne loolu ay junj la la ngay def noonu ay junj la loo xam ne dalay war a womat yeggale la feneen foo xam ne bokkul ak foofu nga xam ne euh, fa nga toll maanaam da nga caa war a yokk aj moomu ci la bokk moo tax aj bu dëppook dogale borom bi danañu ci ñëw ci aj ci boppam baat bi lu muy firi jamono yañ koy def ngëneel yi ci nekk alquran tudd ko ak sunna si yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ay bërëb yiñ koy defee itam benn bu nekk am histoire histoire bu xam ne moom itam du nekk rek ab bërëb boo xam ne dañ fay dem waaye histoire ba dafa war a nekk loo xam ne dañuy lënkale ak ay jubluwaay ay orientation ay irshadaat yoo xamante ne foofu lañuy ñu war a jëmale bu ñu màkkata muktar mukarram ak la nga xam ne moom moo ko wër nga xam ne fa lay aj gi doxee moo xam ci xaram bala moo xam màkk ci boppam la moo xam baatu bàkka ba xam kaaba ga ci boppam la mu xam arafat la minan la musdalifa la waaye itam surtout itam bokk na ca loo xam ne ëpp nay ñàkkaay def mooy ziyaare sam sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali bërëb yooyu nga xam ne fa la ñuy defee e, moom itam incha allahu nag lenn ci nañ koy defee loolu yëpp danañu ko tudd ci sunu daje yi nga xam ne moom lañ namm dajee ko ak yéen ci wàllu aj ba danañ ñëw itam ci incha allahu njàngale ma nga xam ne imaam ali zeynul abidin di doomu imaam xuseynu di doomu eh, fatima ak imaam ali di doomu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jàngalal naka eh, taalibeem ba muy sibli ci lu jëm ci wàllu aj ajangu kon ni ko waxee benn ci jaamu yàlla yi la jaamu yàlla yi nag raaya duñu ay raaya waaye wasiila lañu maanaam duut def jëf ji rekk mu jeex waaye jëf ji daa am lu mu ñu war a jàngal daa am fu mu ñu war a xëcc jëmale daa am fu ñu fu mu ñu war a yóbbu bu ñu xoolaatee aj googu Euh, baat ba ci boppam la muy firi bu ñu ko xoolee ci wàllu luxa maanaam ci firim baat ba ci làkku arab mu ngay firi jublu ngay firi jublu jublu nag dafa am ay njàngat yu bare yoo ne moom la ca sunu borom subhanahu wa taala nam bokk na ca nit ki am jubluwaay waaw am nit ki jamono bu nekk dafa war a fekk ne am na benn programme bu ne ci kanamam boo xam ne moom la nar a exécuté moom la nar a def day fekk ne fi mu taxaw démb xam na ko la ca xam na ko fi mu taxaw tey xam na ko la mu nar a defar ci lu démb la xam na ko waaye am na fu mu samp bëtam foo xam ne suba foofu la bëgg yegg jàngat na itam walla mu ngi jàngat lépp loo xamante ne moom mooy e, la ko fay yóbbu ba fexe ba mu de nekk yegg fa deferu fa defere fa te du fa yàq moo tax alqasdu muy jublu muy am yéene muy am orientation muy am programme ak plan muy xam fi nga jëm te jëm jëm ca lépp lu mu war lu ca war ci lépp loo xamante ne luy jëriñ la nga nekk ca loolu itam xajje daf ñu ko jàngal moo tax ba doomu aadama bi jëm bu jamono bu jógee bëgg aji de déjà loolu rek nekk na loo xamante ne yëngal na ko fexe na ba nga xam ne dootul nekkati nit ku xam ne li ñuy tuddee pilotage à la lu dikk rek waaw pilotage à lu dikk rek nga dóor ko mu daanu du nekk kooku waaye day nekk koo xam ne day planifié boo gisee ñu bare bare ci noonu islam yi léeg-léeg ñi man ñi mooy ñoom dañuy planifié lu war a mat presque téeméeri at ci kanam wala ci wala lu ko ëpp bu ko defee lenn lu ñëw rek li gars wax ne Eh, li yëngu ku yëngala yëngale ko ëpp doole boo fekkee gars yi ñoom rek ñooy yëngal parce que ñooy am plan bu boobaa yow mi nga xamante ne jamono bu nekk dañ mbir mi dalay bett ñaare eh, doo ca fa nga waroon a yegg doo ca yegg mbir mu bare itam boo ca muccee ndimbalal sunu borom subhanahu wa taala la waaye yow moom mënoon nga cay ñàkk a mujj moo tax organisation dafa baax imaamuna amirul muminin alayhi salaam day wax naan iyaakum euh, usikum bi taqwallahi wa nazma umurikum maa ngi leen di digle digal ragal yàlla waaye itam di organise seen mbir moo tax aj rek déjà boo dee pare da ngay yëg ni eh, da lay jàngal lu bare bare bare ci sa programme bu dund noonu nga ko war a defee bu dee nag istilaahan mooy nañ koy defee ak lañ ci jublu buñ ne aj rek mooy dem ci ay bërëb yoo xamante ne yu yàlla teg la baytullaahil xaram muy màkkatal mukarram ca Kaaba ga waaye dem itam ci bërëb yi nga xamante ne moom mooy yëngi neen ya lu demee ni Arafa loo demee jaar jaar Musdalifa lu demee Minan waaye ziyaare gi sang bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali bon aja moo tax suñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali kon suñu borom subhanahu wa taala wax nit ñi eh, nañu aji waaw lillahi ala nnaasi xijjil bayti man istataa ilayhi sabilan képp koo xam ne condition yi dajee nañu man nga man ngay dem ndaxte wér gi maye na ko man ngay dem ndax alal ji maye na ko ngay dem ndax sécurité bi maye na ko man ngay dem ndax xel ma maye na ko mën ngay dem ndax liberté ba am na mën ngay dem ndax mbas ma jaxas eh, eh, nekku fa ba ñun ñëpp ne ku nekk ci moom mu ne la waral naa ci yow ci bu fekkee yooyu yëpp dajee na nga dem màkkatal mukarram ba demee itam suñu sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu ngi wax ne al xijjatul mabrura laysa laha jazaun illa al jannat ena aj goo xam ne aj gu yàlla nangu la nee na amul lu ko yàlla dafayee lu du dugal ko ko ko def ajjana boo demee ci beneen xadis sax mu ngi wax ni aj diggante aj ak omra nga dem omra ba pare aj wala nga aj omra ba ça dépend ci aj bi ngay def nee na yàlla lay kafaaral li nga xamante ni yëpp mooy say bakkaar am na yeneen xadis yu bare bare yoo xam ni yi suñ yonente muhammadin sallallahu alayhi wa ali ak aimatul maasumin salawatullahi wa salaamu alayhim ñëw nañu dañuy leeralal loolu yooyu yan eh, lan la moo tax aj lu ama am solo la moo tax sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali di wax naan nee na ku mën a aji ku mën a aji koo xam ne eh, eh, condition yi dajee mu ngi wax moom yonente muhammadin sallallahu alayhi wa ali di wax imam ali naan ko yaa ali man sawwafa alxajja yamuutu baasahu llahu yowma alqiyamati yahudiyan aw nasraniyan ku mën a aj te demoo toog rek naan at mu nekk nga ne diwén te xamula da man diwén danga nga man diwén danga am diwén sécurité ba dana am diwén ndax mbas ma du am ba tax doo mën a dem demula ndax da xaar rek nee na bu ci dee ci bi bu ko neexee mu dee dekkee ji yahut wala nasaraan waaye jullit moom du ko def moo tax dafa am solo nga xamante ne kenn ku nekk loo ci man ci def loo ci man na def loolu ñaan sunu borom subhanahu wa taala ci nga xamante ne moom mooy li ko téye wa gum ren muy mbas mi muy covid 19 bi yal na ko yàlla génnee ci adduna bi ñu delluwaat ci suñuy activité te fekk bañ cay dellu day fekk ni ñu ngi dellu ci lu gën lañu nekkoon bu njëkk ci wóolu sunu borom subhaanahu wa taala ci topp ko ci jeex ci moom takk ci takkoo ndigalal yonent muhammadin sallallahu alayhi wa ali ràññee itam njabootam googu nga xamante ne moom lañu bàyyee woon ñaan sunu borom subhaanahu wa mu defer eh, adduna bi nu gën a jekk na nga xamante ne ni la nekkee woon incha allahu danañu si dellu siwaat ci ay googu nga xam ne solo sa am na euh, ëpp nay euh, sàggane baaqiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa wa barakatuh